thank you 啊！ دائما هم بصحب كلاب مرة كعب واللوين وغالب وفير ومالك نظر الكرم على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما هم بصحبه كنانة وخزيمة ومدركة إلياس ما مطر الحام رئيس الريم على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما ما بصحبه عدد نذارا ما دام يجاوز عدنانا فتكذيبه قد جاء من العلام على النبي وعليهم النعيل سلاما ربنا دائما امك صحبي حمل معك لشامل ارمي يا ذكر اسبوك تنصر في تنمر أربي على النبي وعليهم النعيل السلام بما دائما وانا بصحبه لأنهم حرمات الله قد تكون قتلوا أنبياء من جرومي على نبي وعليهم أجمعين السلام بلا دائما غام بصحبه إذ كان حامل نوري لي كان على حفظ الإله بلا شك ولا تامي على النبي وعليهم مع ربنا مودنين وقيل فالملاكان الحملان بي وذا حديث ابن عباس نخل حكمه على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا وقيل عدنان فالمحمول والد والأول الأكثر الآص من الكلم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بصحبه وبغضنا السرائي نيران وغمدت رده معدا إلى أخوال الكرم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آب بتامين وقايا ولاة البيت حينئذ وزوجوا فيا حسن اختلاطهم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمن بسلام لا قبل عفان في مغيرة وعتيقا عند مرة فأنقا بك على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آم بسبيل أما علي بلا شك قد التقيا بشيبة الحمد للإفضال والهمام على النبي وعليهم أجمعين السلام ربنا دائما عام بسبب أما البحور لذي الأصداف فصغى إلى ترتيبهن تلاقيه خير منتظم على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما عام بسامي فاطمة سلمى وعاتكة حب وفاطمة هند لون نسمي يا نبي وعليهم أجمعين لك سلام ربنا دائما عام بسامي واخشي بنت شيبان وماوية بالواو سلمى وليلى عد لم تلامي على النبي وعليهم أجمعين السلام ربنا دائما العام بسامي ومنهن جندلات لا تنفع عاتكة وبرة ثم بنت سعد ذي الكرام على النبي وعليهم أجمعين السلام ربنا دائما عام بصحبه سلمى وليلى رباب سودة ومعانة ومعدد وهي الآبيات وتنيم على النبي وعليهم أين سلام ربنا دائما عاما سلمى وليلى رباب سودة وموانة ومعدة علابية تغتغي به وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عاما بصحبه assalaamu aleykum ñu ngi dellusi ci guddi gu tedd tabarkalla sunu waa kër maam bu baax bi tëdd ci Tuuba ñoonu invité fii tey tabarkalla ba ñu wéyee nag doomi daara yi fi daje ñoonu fi invité mu mel ni nag li nu bokk dafa rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mag ñi ñoo xam li ñu jariñu ci moom tabarkalla ba tey mi ngi ci loxo sët yi yal na yàgg ci seen loxo lépp lu mag ñi liggéey yal nañ ko bokk jëriñoo ëpp naa xeeb nag waa bu ko defee ci biir loolu daara yaa ngi fi teew ah di màggal borom daara ju magji sallallahu alayhi wa sallam mu melni itam rek fekke ko sant yàlla war na ci su ko defé xawma kagn la dan jëriñ ay jikkoom kañ la daan jëriñ waaye tey la gën a jëriñ ndax tey la àdduna bi gën a wëlbatiku waaw tey la crise yi gën a bare la kon nag jikkoom rekk moo fi des pour sowe ñépp ah mu mel na wajal gan dana tax ñu xam gan gi kan la wajal gan dana tax ñu xam gan gi kan la ndax tabarkalla tabarkalla yàlla ba mu dalé bind kenn xamul kañ la wante dafa mel na pour noppal nu moo tax juróom benn junni at yi paase ak li ci tegu mu faf nu ko jox rekk ndax li ci des nag kenn xamul kañ la woon waaw li ci des kenn xamul kañ la woon ba yàlla dalee bind ak léegi kenn xamul kañ la woon waaye pour yërëm nu moo tax rekk mu woyofal ko ba ci juróom benn junni at yi ak lu topp am nag ku moo waajal ndax léeg nga dégg ku ni dama bëgg tukki waaye agence sàngam moo ma gënal agence sangam waaye itam yàlla bi mu nammee yonent bi ñëw ci fii ñuy tudde suuf maanaa ci kaw lañu nekk ñii di ko tudde al kawkabul azraq ndax xaritoo gi géej gi xaritoo ak jant bi biir xaritoo ga ak jàppante ga melo ya cay génne mel na ni ku leen boole dana nekk lu bleu lu taral kawkab bi nu nek motax ñu diko wax al kawkabul azraq ñi ci dess tudde ko al kawkabul akhdar ndax gàncax gi tabarakallah tabarakallah ak garab yi tabarakallah tabarakallah ñi ci des tudde ko alkawkabul mutamarrid ndax anaasir yi ngelaw ndox safara suuf waaw su ko defee yi daje ci kaw suuf wone na li fi nara ñëw lan la الكوكب الأزرق الكوكب الأخضر الكوكب المتمرد نخ عناصري وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء su ko defee yàlla ak yonent bi sama doom université sangam laa koy yóbbu yàlla ni ki ma gënal ci nit ñi ci kaw këb sàngam laa koy yóbbu waaw te këw-këb bi yi fi daje wone nag ki fi kan la te mooy nit nit rëy na ci yàlla nit ki jub rëy na ci yàlla nit ki dëng rëy na ci yàlla moo tax bi muy laata tànn ci alquran mu tudd li muy tudd ci nit ba noppi ndax su tëbee tam tànn àdduna tukki su tëbee tëb rejeté àdduna tukki bu ko defee mu tudd nit rekk tànnul rejeté waaw bi mu waxee yonent bi iqra bismi rabbik لفكوني الذي خلق خلق الإنسان وخوكو خلق الرسول وخوكو خلق النبي وخوكو خلق الملك وخوكو خلق الغني وخوكو خلق الفقير خلق الإنسان والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان الوقت واو تدل كان فلينظر الإنسان مما خلق تدل كان فلينظر الإنسان إلى طعامه تدل كان dem na ci ba ci qutila al insaan maa akfara yëpp nit nit rek lay wax nit rek lay wax nit rek lay wax maa bind nit maa ko bind ci ndox mu doyadi na nit seet boppam ci lan laa ko bind ndox bu doy di laa ko binde ba mu nekk li mu doon waaw wax ni nit buñ ko tegalee añ na seet añ bi lu ne fa mu jóge na seet jën bi ban géej la jóge na seet naaja bi ban dool la jóge na seet kànja bi ban suuf la jóge benn bu ci ne dajaleel ma savant yi ci kaw suuf yépp ñu bindal ma ci benn duñ ko man waaw yow ñu indil la rekk nga raxasu lekk defe ni dara xew waaw te fekk na bi muy laata ñëw yàlla daj na lu ne inna sababna al maa sabban ثم شققنا الارض شقا fi ndox jóge ba ba muy ñëw di tooyal suuf yàlla rekk ko xam yàlla mi xar suuf génne ci pepp yow ñu defal la ci añ rekk nga defee ni dara xewul fekk bi muy laata noppi lépp xewal waaw lu mat a bàyyi xel la waaw ndax itam nekkunu fi pour faw dañu fi nekk pour jàng te itam bi lu dog sunu digganteeg moom musiba la te nag yi ko mën a dog dafa bare juddu dana ko dog may doomu dammel dana tax nga dog source bi may commandant cercle fonction la mën na tax nga dog sa digganteeg source bi may traitant bi mën na tax nga dog sa digganteeg source bi te bu sa diggante ak source bi dogee dootuñu la jàppee doomu aadama source bi source bi yàlla yàlla yàlla muhammad صلى الله عليه وسلم محمد محمد القرآن الكريم lu ko dog di musiba te fàtte baaxul waaw fàtte mooy ñaawal taawil te taawil nag moo formé baatin taawil ñett lañ ci jàpp taawil bu tegu ci njuumte wante rafet njorta ko lal ak sopp yàlla muy taawilu sunu maam Aadama njuumteem dinañ ko ko baal ba faw walla muy taawil bu tegu ci ñaw njort ak tuumaal yàlla muy taawilu iblis dinañ ko rëbb ba faw walla taawilu ka feeñal ay sab nu Maryam ba ñu ko wut bu rey ko fa mu nekk ci ruq ba ka ko feeñal ba mu ko feeñalee la soog a yëg ni def na musiba musiba mi mu def lan la koy mën a dabaatale mu ni na xaru kooku taawi la muhmal la ndax al arwaaxul xabiisa sax dem nañu ba ñaan bañ a dëkkaaleeg moom safara ndax feeñal ga mu feeñal Isa bnu Maryam ba ñu jàpp ko moo tax waxkati safaan yi dañu wax ni ndax Isa dafa gëmul woon borom ah su ko defee waxkati njaaxum yi wax nañu ndax Isa gëmoon na bi moo làqu ñu ko doon wut walla Muhammad gëmoon na ba mu duggee ca xunt ma ndax bu gëmoon du dugg ca xunt ñu ni ñaar yëpp bu ci ne mu'jiza la ndax yàlla moo mel noonu yàlla am na tasarruf lu ko neex mu def waaye itam am na lu mu dul jàdd su dee waajal mbir ca maam yàlla ko dale te mën na ko def léegi mu sotti ha? ba tax na lépp luy dog diggante doomu aadama ak sursam musiba te yi ko man dafa bare ta'wilaat yi fala rubbama fala rubbama halakat bi ta'wilaatiha fala rubbama halakat bi ta'wilaatiha umamun tuxaasimu rabbaha وتعاندوه civilisation yu mag yépp bu ci alku bare lee tax ba defe ni sañ nga taawilal yàlla su ko defee tabarkalla tabarkalla tawil bu tegoo ci rafet njort tegu ci cofeel su borom juume itam yàlla baal ko tawil su tegoo ci dëgëranteeg yàlla bopp rëbb bu faw lay jur walla iyaadu billah su ko defee yooyu yépp dinañ ci mën a ni kiy jàngale mooy sunu borom ki mu bëgg mu taxawal ko ca jàngale ba mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa te كسر القرآن الكريم جسني تي اللغة العربية لوات اللغة العربية نعرض كسق الجوهر والمادة xam nga mag ñi di tax ñu topp leen mooy ni seen xam-xam toll ci madda noon la seen xam-xam toll ci jawhara madda mooy li ngeen di wax matière jawhar mooy li ngeen di wax anti matière mag ñi ñoo mën ñépp ci matière ñoo mën ñépp ci antimatière et pourtant defaruñu avion defaruñu oto defaruñu bombe atomique xëy na ñoo feeñal atome ndax atome dafa xaw jege jawhar te jawhar rekay seen liggéey buñ ci jógee sug a ñëw ci madd su ko defee ci biir loolu valeur bi jawhar am bu fekkoon ni automobile essence bi ciy dem litre bi un million lay dana bare ku dul am oto waxuma la nag te eh, liquide rekk la mais jawhar kan moo ko mën jënd jawhar kenn mënu ko jënd ndax yàlla bare leen na ko ba mu ëpp ba moo tax mu tudd alxayb wa shahaada lépp lu aju ci xayb jawhar shahaada màdd la na ngay nekke médiateur ci diggante boobu taxamuloo luy jawaar mënul nekk yonent baa ngi ñëw yàlla wax na ne nit toll ci moom wax na nit ki jaar yoon ak nit ki jaarul yoon waaye tuddagul kenn te yépp kat jëm si ci Muhammad rekk a tax ba mu sottalee linsaanam yu bare yi dafa dal di wax ni inna allaha astafa aadam ñu xam ni choix ba dikk na inna allaha astafa aadam wa nuuxan وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لوتي نيت مان بخي امول وا بوكو ديفه لاكو دالي تي ادم با تي محمد ني مو تان ньоญو ньоكو سيت الجوهر ньоكو سيت الجوهر ñi nga xam ni fexe nañu ba source bi sore leen ñoom it mu tudd leen wa firawna dil awsaad inna qaruna kaana min qawmi muusa waaw ak amru bnu hisham tabbat yada abi lahab choix bi ñëw na rejet bi ñëw na su ko defee ci biir loolu am na yu nit di weddi ngir jamono wante kenn sañu ko weddi te moo di am na nit yàlla yi ñuy tudde ay yonent walla ñu di leen tudde ay aqtaab lañu mën dégg keneen du ko mën dégg mënul nekk waaye yépp ci coobare yàlla ndax li Sidi El Hadj daan wax yonent yi ñoo nu gën d'accord nañ ci waaye nanu d'accord ci ni ñoo nu gën ngir coobare yàlla waaw delloo yépp ci yàlla yonent yi liñ nuy gën yépp coobare yàlla lañ ñu gën waaw su ko defee li ñu wax ci tawil tudd nañ ci iblis ñu rëbb ko taawilam baaxul ndax daf ni yàlla daf ko jënde aadama waaw kooku du teggin te Sidil Hadj Malick nee na jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla àjjana nee na jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla àjjana wante nee na mënul fexe ba jaamu yàlla jegeñ yàlla ndax àjjana sorewul yàlla dafa sore moo tax jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla aljanna waaye mënul fexe mënul tax mu jege yàlla waaw li mën a tax nit jege yàlla mooy teggin mooy teggin te mag ñi nag teggi na leen gënal aljanna parce que seen jom ak seen taxawaay àgg na fu nga xam ne bu leen yàlla yóbbu woon safara ñu ubbi fa seen daara di jàngale amul benn werante su ko defee abraha ba muy toj kaaba ga tawil bu juba dee tax bu fi kaaba gi nekkee du ma siiw kooku jubul te du teggin kooku jubul te du teggin moo tax yàlla écrasé ko mook armée mi yépp et pourtant Hajjaj ibnu Yusuf jël na catapulte bombardé kaaba gi ba mu toj te kenn attewu ko ni ñu attee Abraha lu tax tawil bombardé na kaaba gi ba mu toj te kenn condamné wu ko ndax tawil ndax mooy digganteem ak Abdullah nu Zubayr abadi yépp sax ndax dañu wax ni koo dàq ba mu dugg ci kaaba gi mujj na may ko jàmm waaye nag am lu xajjaaj ragal mooy bu ko ñépp xamee ku ne nekk tooñkat ndax ku ñu dàq nga daw dugg ci kaaba gi ni mucc na te comme moom la dénkoon polisu lislaam nag mu bëgg a wone na lislaam toll bàyyi ba abadila yi daw làqu ji ca biir kaaba ga mu jël catapulte bombardé ko yàlla xam ni yàqu yàqu bu ëpp lay dogale moo tax kenn condamné newu ko ci bi Makka lakke Kaaba ga lakk walla ci Madina jàkk yonent bi lakk yàlla yoonam yoonam ndax benn doj rekk su ko nee écrasel Sénégal léegi doj wa dina ko écraser ci fukki minute ak juróom yoonam looloo tax doj yi lakk màkk nit lakk ko doja ko lakk te xam nga doj dafa am yu nekk ci biiram boo demee am na barab yu nga xam ni doj wurus a nekk ci biiram am na barab yu nga xam ni doj jamaa nekk ci biiram am na barab yu nga xam ni doj zënd moo nekk ci biiram ak kibrit su bëggee lakk dëkk doj bi amee zënd ak kibrit moom la koy sant zënd mooy yi ñuy kose ba allumette amagul ñu di ko kose ba ba moo takk moo di zënd gannaaw gi la kibrit feeñ moom boo ko jegeñee tuuti rek mu takk loolu tax Sayid Cheikh sama turandoo ñu tudde ko al kibritul ahmar waaw bu ko bant bi jegeñee rek takk yàlla lakk makka lakk jàkka yonent bi mu siiw ci àdduna jullit yépp gerdi ñam jullit yépp def te ku jàq te amuloo ku la dalal mën na jur lu nekk ku jàq te amuloo lu la dalal mën na jur lu nekk looloo tax borom way wa wax